donc ñu am ñiko jënd fi ñuko xam dañ ko commandé won ak organisation bi ni ANIPL donc tay ñu ñëw pour waxtaan ak wa ANIPL xol nag yi xol cérémonie bi nga xam ne le ministre le premier ministre Amadou Ba moy ñëw def cérémonie de remise des des jeunisses donc tay ñu dugg ak wa ANIPL wan leen nag yi nga xam ñoo jigé bitim réew nga xam ne dañoo mëna a joxe meew bu bëri euh, donc ñu dugg ci biir pour xol tay jeunisses yi nga xam ne nag yi ñu jëlé France war leen a jox seeni boroom monsieur le maire tey lan sa présence ici, cérémonie bon je ngi di aussi l'ensemble des auditeurs c'est euh, une téléspectateurs bon sans présence c'est quand même bon peut-être une euh, trop mais je suis dans l'agriculture depuis longtemps je suis un ancien agent de la SODEVA j'ai fait quoi 25 ans à la SODEVA donc j'étais dans l'agriculture. donc je connais après ce que ça fait parce qu'en ce temps là à la SODEVA tu faisais l'agriculture, l'embouche et tu faisais en même temps les semences, ainsi de suite. Donc ça, c'est une passion pour moi. donc est un domaine bon maîtriser. waaw maîtriser naa tout tuuti rek mais nous technicien mais il y a des gens qui sont ñaar bien, kon le mais c'est parce qu'il y' a beaucoup d'espèces qui m'intéressent. ensuite dans le dans dans le domaine de l'élevage, l'élevage, je dama def ay chevaux rek la jël la mais maintenant je vais rentrer dans les dans les bœufs avec dans les euh, dans les trucs. Amadou Ba sama turandoo li mu wax it dëgg la xam naa ko léegi ëpp na ñaar fukki at fanweeri at sax laa war a wax ndax boobu liggéey moo ñu boole woon ñu mën a seede ni ci doomu réew mi nga xam ni tey jii mën nañoo yaakaar ci ñoom ndax bëgg réew mi ndax bëgg liggéey bëgg a jàppale kooku it mën nañ ko ko seedal ndax koo xam ci fanweeri at gis ko muy liggéey nekk ci leneen nga di ko dégg ci lu mel nii ba tey nga ñëw gisal sa bët xam nga ni li ngeen doon séq li ngeen doon wax dëgg la Mamadou au nom du président de la République je voudrais vous féliciter pour le travail immense que vous êtes en train de faire L'IREC, le président Macky Sall bëgg partenariat public privé rawatina partenariat bi nga xam ci ay doomu réew mi la ndax exemple dama a ndax bi muy waxuma dañ ko c'est l'occasion pour moi ici de te rendre un témoignage mérité parce que gis li Sénégal ci 30 ans merci pour tout ce qui est tu en train de faire muy nuyu éleveurs Les politiques politique bi nga xam président Tambali il y a cinq ans 2017 moo doon ma première expérience bi ni outil dur bitim réew andi ko fi pour yok sunu jour, mais surtout yok comme, comme ñi nga xamni dañuy liggéey ci lool ndax réew moom la ci kenn ndax likoy jëmele jëmale kanam rek mooy fexe ba doomu réew mi ku la ngay liggéey nga gis sa bopp na ci gis mën a sa bopp nag benn li état bi di dimbali ñaar yow li ngay def mais ñett li ci ëpp solo organisation bi mettre en place pour que ñëpp mën liggéey ñu gis ci yeneen réew am fa ay nag yoo xamante wala jur mën nañu sax jur ak ak ak ay xar fa dinañ am ci wàllu meew lu ëpp liñ doon am dinañ am ci wàllu ndawal kooku nag séeréer ko moom lu ëpp liñ doon am dinañ am sax yeneen yoo xam ne dina jóge ci loolu moo xam ay der la wala leneen lu mel noonu loolu ci wàllu koom-koom lu am solo la moo taxoon ren ci budget bi ñu yokk ko def ko ñaari junni ak juróomi téeméer

moo xam Gouzera yi nga xam ni maag Arona galo defoon nañ ko daaw rek ci waxtu wi inshallah lañ ci defoon déwén 2025 bu ñu ko yàlla mayee dinañ ko ful ñaar. comme ni ngeen ko gisee léegi ministre Amadou Ba def na cérémonie ba pare tey ñu ngi nii taxaw ak monsieur Philippe on le laisse se présenter. Donc Philippe Dumas, donc, euh, président de la coopérative Sicarev et Delta Gro Export, éleveur moi-même euh, en France ok nee na éleveur la président du Delta Agro mooy ñi ñoo importé nag yi fii Sénégal ànd ci liggéey bi ak aujourd'hui qu'est-ce que ça te fait de voir euh, euh, cette cette cette cette festivité cette cérémonie de réception des des vaches qu'est-ce que ça te fait de, travailler avec euh, l'ANIPL alors pour nous, c'est bah, la cérémonie aujourd'hui, c'est l'aboutissement de plusieurs semaines et mois de, de travail et maintenant avec l'ANIPL depuis 2017, puisqu'on avait déjà organisé la première opération ANIPL 1 et jusqu'à celle-ci, l'ANIPL 5, on a, on a été là à chaque fois. Ben, ça fait qu'on on voit une directive, un choix d'un pays qui a été fait sur le développement de, l'élevage, l'importance de développer de l'élevage, d'avoir des animaux, et euh, on s'inscrit dans ce partenariat avec ben, la fourniture d'animaux qui correspond euh, aux besoins d'ANIPL pour les éleveurs euh, sénégalais et le développement de la production laitière au Sénégal. D'accord, on voit qu'il y a beaucoup d'ampleur, les gens s'y intéressent beaucoup. Qu'est-ce que ça te fait, vous qui êtes éleveur en France, de voir aussi les Sénégalais avoir cet engouement pour, pour les races euh, de, de type laitière alors pour moi qui suis, oui, éleveur, c'est une sensibilité particulière de voir aussi que ben, euh, un pays s'intéresse euh, au développement de l'élevage, à la souveraineté alimentaire, parce que derrière le développement de l'élevage, c'est de la souveraineté alimentaire, et, euh, ça montre bien l'intérêt de l'élevage comme support de développement économique, déjà dans des campagnes, dans des territoires, avec toute l'organisation qui va autour de l'élevage, parce que ça veut dire que c'est du suivi technique, c'est de l'alimentation, c'est des vétérinaires, c'est de la, toute la partie transformation. Donc c'est de la dynamique économique avec un objectif très clairement euh, affiché, qui avait été affiché euh, y compris l'année dernière par le, président Macky Sall quand on a fait la même, euh, même réception l'année dernière, c'est aller vers de la plus de souveraineté alimentaire pour le Sénégal. Et euh, je le dis toujours, en France, on a aussi un ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. n'est pas par hasard, c'est que c'est un enjeu pour tous les pays d'assurer cette souveraineté alimentaire. donc comme souveraineté alimentaire Aujourd'hui, euh, qu'est-ce que ça vous fait Vous avez amené 1200, 1200, 1300 génisses. L'année passée, c'était 1200. Cette année, c'est 2500. Et il y a le premier jet qui est là, qui, qui fait 1300 génisses. Donc, euh, quand est-ce qu'on peut attendre pour le reste euh, bah, on va se remettre euh, à nouveau au travail euh, bah, dès, cette opération terminée pour euh, bah, essayer d'organiser le, prochain bateau pour venir au Sénégal. Mhm. dans les délais, c'est de voir aussi entre l'offre française, les besoins ici, à quelle date et quelle est la, meilleure date pour organiser cette opération. Mais on, va, on est déjà dans la réflexion pour, caler un calendrier et de la suite de ça puisqu'on a bien compris qu'il y a un enjeu et un objectif de faire ces deux bateaux euh, sur, euh, sur cette année. Donc, qu'est-ce que vous conseillez aux éleveurs d'ici du Sénégal Comme vous, vous connaissez mieux les vaches ici, quel type de comportement devrait-il avoir par rapport aux vaches Est-ce que le climat du, du Sénégal en Afrique, est-ce qu'il est adéquat alors sur la partie conseil aux éleveurs et euh, j'allais dire euh, mon, regard et mon regard d'éleveur n'est pas euh, complètement transposable sur ce qui peut se faire au Sénégal, mais l'important c'est ce qu'on a évoqué déjà depuis un certain temps avec les équipes, c'est vraiment de, dire il faut former des éleveurs, il faut que les éleveurs échangent entre eux aussi sur des techniques, ce qui marche, ce qui marche pas. le sujet du foncier, de la ressource fourragère a été évoqué ce matin, avait été évoqué l'année dernière. bon, moi je l'ai redit euh, ce matin un ministre de l'élevage, c'est l'enjeu. C'est-à-dire pour monter un élevage, il faut qu'un éleveur il ait de la ressource fourragère, donc il y a le lien au foncier. C'est un vrai travail, mais c'est la même problématique partout. Et puis après, ben, c'est de l'expérience, c'est de la formation. C'est tout un travail à mettre en place d'expérience de formation. Et on s'aperçoit que les animaux, euh, pour euh, pouvoir avoir visité un certain nombre d'exploitations qui ont reçu des animaux depuis nos premières opérations, l'acclimatation se passe bien. il faut vraiment organiser l'élevage et donner des perspectives et des perspectives de formation à des jeunes, parce que l'objectif euh, partout, c'est ceux qui vont aussi pousser et faire avancer la technique, c'est les jeunes éleveurs qui ont envie de faire avancer les choses. Donc quel est votre dernier mot, Monsieur Dumas bah, que ce partenariat puisse euh, perdurer et nous on s'inscrit vraiment dans cette euh, euh, volonté d'accompagner, d'être là en soutien au projet de, de l'ANIPL sur le, développement et l'intensification de la production laitière et on voit que ça a du sens donc à partir de là c'est des beaux projets qu'on a envie d'accompagner de, de, et d'en faire partie. merci monsieur Dumas donc mon nekkoon Philippe Dumas moi suis moi un porte donc on le remercie de, ces quelques mots. Merci beaucoup. dellusiwaat seen biir émission découverte tey ñu ñëwaat encore war a jàkkaarloo ki nga xam ne mooy Baye Ba bokk ci comité directeur u ANIPL donc ñu ñëw war a jàkkaarloog Baye Ba mu gën ñoo expliquer tey li jëm ci nag yi li liggéeyu ANIPL ci ci wàllum euh, importation wu nag yi sëñ bi baax ñu ngi lay ziar Baye. ñu ngi lay delloo bu baax. di la jox sa wàccuwaay vraiment di le le remercier aussi ci dalal bi di rafetlu sen liguey ci Sénégal ci jëm ci importation wu yi donc ñu bàyyi la nga présenter bon comme ni nga ko je man maay euh, Baye Ba donc euh, membre euh, comité d'examen ANIPL bon chargé de communication et du projet voilà donc tay ñu lay dalal fii vraiment le site de quarantaine bu ANIPL voilà donc nous ñu vraiment watchengen ngeen mille lépp lépp nekk 2500 têtes donc ngeen première lot bi ngeen wàccee 1200 donc comment ça se passe seen li ngeen leen mettre en quarantaine nii donc tey est-ce que yéen a ngi commencé joxe nag yi ak la yan ak remarque ngeen pour l'instant mhm. voilà donc euh, opération NPL 5 bu ren moom dafa opération bu exceptionnelle ndaxte bi ñu commencé 2017 ba opération bi muy cinquième bi bon ay 1100 1200 1100 la ñun mais euh, euh, si le président décidé ne dañ koy yokk def ko donc 2500, euh, une subventionner à 50%. bon donc on indi une mille cinq bon dafa dafa bari, waaw dafa métti dafa bëri te opération bi ñu koy gisee nii dafa nekk préparation bi nga xam presque at la waaw dañu toog at si ginnaaw di réunion di organiser site bi nga gis nii tamit euh, dafa nekk site bi nga xam dañ koy préparer au moins ay un mois deux mois à l'avance pour réceptionner les vaches pour réceptionner les donc euh, walum d'orbi bi infrastructure ak euh, am na yu a yi nga xam ne ñu koy balay nag donc euh, puisque 2500 là donc nous xaaj ko si ñaari bateau donc premier bateau bi 1360 génisses voilà y a 45 taureaux laitiers ak y 200 bays, et bays joxe 100 xar ay xar yi nga voilà donc euh, légui benen bateau bi nak ñukoy programmer ni inshallah xamna ci courant mars wala avril inshallah d'accord ci bateau bi ñew ni 1200 est-ce que yëpp lañ jëndandoo wala wala dañuy bàyyi ba ñew fi soog jaay wala comment ça se passe. non non non non ANIPEL numuy doxé c'est que euh, suñu tambalé opération dañuy def euh, dañuy ibbi liste dañuy ibbi liste yónnee ay fiches yi nga xamné mom moom wax fiche d'intention de commande. Mm-hmm. donc qui ci bëgg bon nga nek membre ANIPEL bañu nek membre éleveurs yi Sénégal yépp la ñu ko ibil quoi donc euh, euh, dañuy inscrire voilà suñu inscrire ba nga xamné ne toll nañu si li nga xam mom lañuy ko recommander manam euh, exemple comme bii ni mille suñ ci tollee dañuy fermer liste bi légui ñi nga xamné dañuy jël dañuy dem verser ci compte bancaire nga xamné c'est dédié à l'opération ngi seen commande nak mu nekk commande bi nga xam commande ferme la donc si pour répondre sa question bi rek moy nag fi ne yépp yépp yépp bu si nekk amna borom voilà légui ki si bëgg nak ci benen opération da ngay teel bintu rek voilà mais duñu indi nag ba pare doo ko jaay. jaay ñu. dañ koy avant muy ñëw. voilà nit ñi dañuy commander ñu indil leen. voilà mais ANIPEL du en fait du euh, structure bi nga xamné à but commercial la. Mhm. association là c'est est à but non lucratif. donc euh, lu ñuy def rek mooy jàppale éleveurs ñu am nag à de très bons coûts. Mhm. voilà donc da ngay commander ñu indi la incha allah mu mel tamit lolu ci coût bi nga wax noonu melni na ni état bi aussi japp na ci ba subventionné ko à hauteur de 50% wa effectivement donc euh, nak bo jënd rek xamal ne état bi fayal na la xaj bi voilà li ni ñëw a xam te mooy ANIPL avant muy euh, muy def opération bi état bi doon subventionné ay nak diko indi mais nak yoy ñi ko doon indee fi presque ay njëg yu cher cher de cher ça bon bi ANIPL ñëwee presque mun na ne yi ko nit ñi doon jëndee xaaj nañ ko ba ñett xaaj nañ ko ba ñett ndaxte bon dam nañu négocier ak ay fournisseurs xool ñi nga xam ne ñoo gën a baax ay jur gën a yombale voilà ñu fexe ba éleveurs yi ki ko doon jëndee par exemple euh, ay deux millions cinq cent wala trois millions wala nangam nga mun ko am des fois ba moins de un million voilà. donc moins de un million donc loolu moom say ça veut dire que ni vraiment état teg na ci loxo bu baax a baax te mi ngi dimbali éleveurs yu Sénégal donc tey ñi ngeen di jox nag yi est-ce que tey am na accompagnement bu war technique boo xam da ngeen leen koy defal. Hmm waaw bon ANIPEL nous comme ay euh, ay comité techniciens lañu docteurs vétérinaires bon y a un peu de tout bon pour l'instant nous ngi leen accompagner parce que soo yi dañu car y a pratiquement euh, cumulé entre ANIPEL 1 et ANIPEL 5 nous jot jël ay et quelques personnes. parce que li y a vingt sujets qui jot a waaw depuis ANIPL 1 li jot a ñëw ëpp na six mille. six voilà donc euh, bon pour toppale ñoom ñëpp nag c'est un peu difficile. Mm -hmm. mais ñi ngi am un projet aussi de de mettre en place benn euh, cellule technique bi nga xam ne day dem di leen visiter. Mhm. waaw mais terewul tamit euh, ku ñu si mun accompagner si ay conseils ku ñu si mun accompagner si nga defar say bâtiment wala sa prophylaxie nooy vacciné wala alimentation bi bon ñun on est ouvert donc tout le comité directeur wax dëgg yàlla ñu ngi jàppale ne ñu ñu ko mënee. macha allah mu mel ni loolu aussi taxawaay bu am solo la ci wàllum élevage ak aussi ci importation wu nag yi tey nag yi ñu taxawal ni yi mooy Montbéliard ñu wax ci yi rek après mun laa libéré tey lan nga ñu mën a wax ci Montbéliard bi. bon Montbél Montbéliard c'est euh, bon c'est une race vraiment française euh, moom la ñuy wax tamit race mixte manam nak bi day joxe mew et en même temps tamit day joxe yàpp voilà parce que ñom sen toro yi dañuy dem de def ay une tonne voilà bon sénégalais bëgg nañ ko trop parce que te soo xoolee si importation bi pratiquement euh, liñ ci wa 60 presque importation bi yëpp ay Montbéliard la ah, parce que nit ñi moom lañ gëna tam voilà rafet na bon amna mew bëre na mew té tamit amna euh, am adapté wu nañ tamit waaw ils sont bien adaptés. Les fàttali ñu yan ak yan race ngeen indi. Euh, Montbéliard bi donc Holstein.

voilà mais ñun lepp lu jëm ci walu meew dal lañuy lañuy indi. loy tëjee sëñ Baye ñi ngi bu lo loo amoon jàkkaarloog yow am ak yow waxtaan bi lan nga mëna a tay lu jëm ci téléspectateurs yi ak lan ngay mëna a ñaax éleveurs yi nga xam tay ñom lañuy jox nag yi. ah bon xana di bon di leen remercier déjà ci reportage parce que c'est une très bonne chose bon parce que ñu bëré ci sénégalais yi xamuñu jur xamuñu nag yi bon amuñu information tamit je pense que ce genre d'émission aussi dina permettre euh, à peu près li xew de dëkk bi euh, opportunité parce que c'est ouvert à tout le monde comme je l'ai dit pour euh, Anipel, c'est pour tous les éleveurs tous les Sénégalais qui veulent acheter des animaux ils peuvent acheter des animaux donc c'est ouvert à tout le monde donc loolu laa koy et puis di ñaax pour adhérer à Anipel voilà nañ ñëw adhérer et puis ñun on est là pour vous accompagner incha non man mom damay ñëw adhérer incha allah donc li mo nekkoon suñu waxtaan ak Baye donc vraiment mu nekk lo xamni lu am am solo la vraiment ñu koy remercier ci. Euh, dalal gi ñu dalal fi ci ñàgg ñu aussi déggu nañ euh, le premier ministre Amadou Ba li wax ci année prochaine dinañ ko yobbu ba 5000 nak 5000 000 têtes donc mu nekk loo xam ni tey lu am a am am solo la ci élevage ci càmmu Sénégal donc ñu dem ci kanam gën a waxtaan ak yeneen éleveur ba ci kanam incha allah. ñu ngi taxaw ak suñu maman Dieynaba Sidibe. mu jógee ba Tamba nekk éleveuse nekk fermière donc tey mu ñëw am taxawaay bu rafet ci cérémonie ANIPL bi donc maman ñu lay laaj tey say impression ak li la jëlee Tamba ba dakaar ndax cérémonie bi. jërëjëf maa ngi nuyu waa Sénégal ñëpp di nuyu nag euh, président Mamadou Ba ak waa ANIPL ñëpp euh, boo gisee bés bi tey ma teewee ko dafa cosaan.

di ci am meew bu bare benn ratt rek mun ngaa am fukki litre ak juróom mu nekk lu am solo loo xam ne lii non seulement di nga ci dundal sa njaboot mais di ci jaay say dëkkandoo jaay ko say mbokk ñi nga xam ne eh, bëgguñu dara lu dul meewu nag loolu moo waral tey bés bi bi président wootee ma ñëw fekkee bés bi di ko rafetlu itam ndaxte ñi bari jënd nañu ci nag yi nag yi itam am nañu njëriñ ñii liggéey ci nag yi dinañ ko njëriñoo mais ñi nga xam ne ñii meew mi ci ñoom la jëm dinañu njëriñoo mais ñi nga xam ne ñii eh, yàpp bi ci ñoom la jëm dina njëriñoo mooy ban njëriñ mooy création ay li bérébu liggéeykaay yoo xam ne. création d' emploi xale yi mun nañ fa liggéey jigéen mun nañ fa liggéey eh, ñu njëriñ seen waa kër yi. mais nag ñu njëriñ itam dëkk bi loolu moo waral ñuy wax souveraineté alimentaire waaw moo tax nag ma ñëw euh, beneen bi mooy nee naa président Mamadou Ba na xalaat euh, ak premier ministre nañu def ay kiosque ci biir dëkk bi jigéenu sàmm yi jógee Sangalkam ñi jóge Bambilor ñi jógee ci yeneen communes yi fii beeg puut bu ñuy xëyee di jaay si seen soow ci weeru koor bi ñu mun leen na fekk ci béréb boo xam ne boo yeggee rek dangay jënd sa soow jël say siyo soow dem dem yóbbu sa kër ndaxte xam ngeen ne Sénégal weeru koor soow rek lañuy faral di dunde ci ndogu ak ci xëdd kon nag boo amee fu ñu koy jaayee muy soow pur soow nag mun na leen njëriñ te ñu it directoire dinañ ci liggéey pour ñu mun a am ay Fra mun a am ay certification ñu mën a jaay soow yi nga xam ne ñu ngi koy defar di ko jaay ci supermarché yi di ko jaay ci Auchan yi bu ko defee kenn dootul wuti ji beneen meew budul meew nag. maman boo amee looy tëjee lan ngay wax. li may woote rek mooy ñi nga xam ne am nañu nag yi nañu de woo naa leen pour ñu béy ñax béy ñax am na solo lool. culture fourragère bi am na solo lool. te yaakaar naa sax am nañ ci léegi réseau boo xam ne. jigéen sàmm yi dañoo organiser wu nekk réseau des cultivateurs de de culture fourragère li tax loolu nag mooy jur bu suuree rek ñun pël yi dañuy ne nagge bes nge wuur na bi yum na bi goɗɗo nag bu nag bu bu ñuy ràtt bu suuree dina la dundal dundal njobootu jàmbur kon nag euh, nañu béy ñax loolu sànq dama ko fàttee wax bu ñu béyee ñax suñu jur gi suur dootuñu jéggaani yàpp dootuñu jéggaani soow dootu waxatuma waxe diw ñor yooyu itam xale yi nañu dugg ci àll bi ñu béy bu ñu béyee rek njëriñu maa ngi leen di gërëm di leen sant asalaam. ñu ngi nii taxawaatak ak euh, keneen ki nga xam ne mi ngi bokk ci commité directeur bu ANIPL en même temps nekk éleveuse bu ñu ràññeekul ci dëkk bi donc muy ay fay ay Aïssatou ñu bàyyi la nga présenté wu ci ñii lay seetaan. salaamaaleykum. maa ngi tudd Aïssatou euh, fermière nekk tamit membre comité directeur u ANIPEL euh, jàpp ci organisation journée bi tey. donc balaa ñuy ñëw ci organisation journée bi dañuy ñëw ci Aïssatou en tant que fermière Aïssatou yow tamit nga gis vraiment importation wu au delà ci li nga bokk ci comité directeur bi importation wu jeunesse yi tey lan la mën yombal tey ci seen liggéey. ah lim ñu mën a yombal lim ci lim ñu mën yombal bëri na. Euh, ndax day euh, participer ci production meew bi Sénégal mhm. daf koy yok ndax meew Sénégal xam nañ lu bëri dañ koy importer mais le fait que ñuy importer ay nag euh, ñi nga xamante ne mën nañ produire meew bu bëri mhm. day jappalé filière locale bi euh day tax nit ñi mëna am production bu bëri Euh, mën a transformer mën a pour euh, def yeneen produit yeneen produit yi nga xam ne mën na compétir ak produit yi nga xamante ne day jóge bitim réew donc vraiment euh, am na solo daal ñuy le fait que ñuy importer ay nag. mu mel ni comme mooy ci wàllum transformation muy muy li jëm ci yaourt yeeg fromage beeg yooyu yëpp donc tey loolu nekk lu am am solo. Aïssatou nek du ci yëngu donc ak li nga leen président Macky Sall jàppale ci walum importation bi ñu daaw ñi ngi won ci 1250 donc tay mu wara am benen 1000 yenen 1300 trois cent têtes yu war a donc tay nan nga gisee approche boobu ah di ko rafetlu rek di ko rafetlu sawar ci lolou tamit te contente ci ndax comme ni ma waxee rek bu ñëk ba 2017 la woon. 2017 mm-hmm. ñu importé euh, ñu bari am si ñuy demaat ANIPEL année bu am rek am ñu bees ñu ñëw di di rejoindre ay membres comme ño xam nak ay membres lañu wala duñu ay membres. voilà donc euh, ñëpp ngi ci mëna a bénéficier donc le plus ñuy importé le plus ñu bari di ci di ci di ci bénéficier mm-hmm. donc lolou dañ koy dañ koy rafetlu te di ñaan yalla mu yokk.

mais euh, du forcément par liguey mais sama classe gi nga xamantene peut-être bok nañ ci nga xamantene dañuy dañuy dañuy outil nak gi même soudé touti la euh dañuy promouvoir ñeneen day tax ñi neneen ñi di bëgg yeneen jeunes yi bëgg jënd impo kii euh, élevé di waaw di si gën a intéressé wu loolu ñi ngi ñi ngi gis en tout cas plus de personnes ñu yuy intéressé wu si mbir plus de jeunes yi intéressé wu macha allah donc tey nag ñu ñëw ci wàllum organisation bi ñu gis ni tey ANPL chaque année day am beneen organisation boo xam ne tey dina jaar yoon ci par rapport ak la cérémonie de réception des jeunes tey ñu gis monsieur Amadou Ba aussi tamit monsieur Mamadou Ba tay ngeen rendre ko hommage ci walu jëm ci depuis parcours depuis bi commencé importer nagui tay yoy yooyu yan sen rapport ak ban approche ngeen am ak ak président. non président mom suñu président la mais pas seulement ñun ñi ngi ci membre nek membre comité directeur euh, suñu né membre comité directeur manam mën nañu wax né ANIPL ñi koy doxal euh and euh, comité directeur bi la président ñëw nek suñu président mais nekul président juste parce pour le poste. dafa nekk président di liggéey maanaam dafay liggéey di jéem di si def alalam di si def ñàkkam ngir mën a egg fu ANIPEL egg fu mu egg ANIPEL tey su eggee fu mu egg ba tey foo cité benn organisation wala association doo ko bàyyi ci cadre élevage euh, moom moo tax vraiment liggéey na si lu bëree bëri bëri ci ci ñàkkam ci ci ci lu maanaam li ñu mën a wax si moom daal.

on l'a bien reçu, machallah, avec le ministre d'ailleurs. Et euh, voilà, comme d'habitude, on a l'habitude de le faire. L'année passée, on a eu le président. Cette année, on a eu le PM et on espère qu'on aura encore des autorités qui viennent euh, témoigner de ce que nous avons fait Donc, machallah, vraiment, ça s'est très très bien passé, machallah. Donc, vous êtes Aïssatou Faye, vous êtes fermière, en même temps, vous êtes comité directeur de l'ANIPL. Nous sommes centre de Gourem, qui wax yi mu wax fii wax yu rafet yi mu wax fii léegi di ko encourager aussi ci élevage bi nga xam ne élevage bi képp kuy jeune war nga ci mën a foncé wu bu dul dara sax nga commencé jàng def ay recherches pour mën a xam tey nan ngay mën a amee ci nagu ANIPL yi nga xam ne ils sont vraiment accessibles vraiment ci jeunes yi nga xam dañ ko subventionné à hauteur de 50 pour cent donc vraiment mu nekkoon rafet. tey ñu ñëwaat ak suñu président suñu suñu xarit muy président Abou Kane tey ñu ñëw fekk ko fii ci cérémonie réception wu jeunesse yi donc mu nek ko xam mom moom tamit mi ngi yëngatu vraiment ci manam élevage pur et dur bi ni wax machallah mom mom lay def tay lepp luñ fi digle ci culture fourragère ci élevage ak yëpp fekk na mom mu koy def manam mo ci jitu nit ñi top ko donc président ñu bàyyi la nga nuyu. waaw ñaga ma lay nuyu di nuyu suñu mbokku éleveur yépp di nuyu suñu mbokku diaspora bi di nuyu bépp euh, téléspectateur bu ñu sétane président tay nga ñew teewee ak taxawé cérémonie réception aux génisses ici fii ci ñàgg tey lan nga am loy wax ci ci lolu xana am bekté si réception bi nu mu déroulé déjà c'est quelque chose d'extraordinaire euh, indi euh, importé 1300 1300 génisses yi nga xam ne un ëmb ah. euh, à un prix moindre à un prix de 1 million ah. donc ba avons ñu ñëw euh tay ci cérémonie bi premier ministre ñëw ubbi devant vraiment euh, plus d'un millier d'éleveurs euh, suivis par tous les médias du Sénégal euh, donc organisation bu jaar yoon donc loolu dañ ci am mbégte lool di ñaan yàlla rek deuxième tranche bi yàlla dimbali ñu comme tranche. nu mu deuxième tranche ou 1200 jeunes Bien bii mois de d' avril euh, mu yombee comme bii ni mu yombee donc tay président en tant qu'éleveur ak bénéficiaire nag yi ñi nga xamni tay tey ñoo commandé ci nag yeeg yëpp tey lan nga leen mëna a am loolu conseiller tay ci gestion bi ak ci ci li jëm ci culture fourragère nga xamni tay soulever nañ ko fi tay yow mi nga xamni tay am nga ci xam-xam lan nga ci lan nga leen mëna conseiller comme d'olé. ah léo bon li ma bëgg eh, wax rek mooy mbirum meew moom xam nga meew moom boo soo soy def nag da ngay def pour meew pour jaay te ku wax jaay eh, wax eh, lim la dikkee parce que jaay soo jaay am bénéfice mom, il faut nga calculer lim lay dikkee ñaata la lim lay dikkee donc dafa war a gën a néew li nga war a jaayee mais bu fekkee da ngay jaay li nga xam ni moo prix bi nga xam ni moo gën prix bi mu dikkee bu mu la dikkee loolu ça pose problème Euh, te loolu malheureusement éleveurs yu bëri yuy produire meew fii loolu moo leen di dal euh, dañuy produire rek produire lu bëri mais duñu mën a jaay wala yenn prix yi ñuy jaay euh, dafay dépasser largement ñoom prix lu mu leen di dikkee donc prix de revient li ñu wax prix de revient donc prix lu mu lay dikkee prix boobu moo jar xool naka ngay fexe ba wàññi ko nu mu gën a wàccee te loolu pour nga def ko il faut nga xool prix de revient bi yan facteur ñoo si gën a dominer te suñu xoolee euh, si gestion nag yi facteur bu gën a dominant mooy lekk bi waaw te lekk bi moom euh, mooy mooy lépp moo facteur dominant bi lekk bi soo ko maîtriser rek. ah maîtriser ce, ce, ce élevage parce que soo maîtriser lekk bi ce coût de revient bi dina watch, en ce moment là prix bon monte jaay da nga euh, pour vraiment lekk la meilleure manière de maîtriser ça mooy nga am sa indépendance am sa indépendance mooy lépp li nga soxla wala li lu gën a bëri si li nga soxla ah nga béyal ko sa bopp ah maanaam lu culture fourragère parce que nag ruminant la un ruminant ruminé ruminer nag balaa moo kontaan biir bi fees la ñax ah donc ñax bi da nga ko wara a euh, euh fourrage bi bi nga xamni façon xeetu ñax bi nga xamni ni mun na sax remplacer aliment bi bobu tam da nga ko wayal béyal sa bop ba si sax euh, céréales yi nga utiliser ah mbokh bi wala dugub beeg yoy mun nga ko euh, béy té du la dara tay ji fourrage bi ñuy utiliser. lu melni ay ensilage wala même luzerne wala ay maral falfa loolu tay ji soko ko bësee béyee ah bu féké béy bi jaar na yoon warul passer kilo bi trente cinq francs on passe 35 francs alors que si beul da obligé on ñax un apport on ah, nga koy kilo bi plus de 300 francs hein ba paré euh ce ce 300 francs mu diké le 600 francs il hein? est obligé d'y aller les 500, 500 est obligé d'y aller les 700 donc il faut vraiment maîtriser les coûts Si vous voulez maîtriser les coûts moi maîtriser vraiment euh, euh, l'alimentation. L'alimentation la meilleure manière de euh, maîtriser ça la culture fourragère bi ngay béy li ngay hein? donc li ngay c'est les dur. C'est ce que parce que Sénégal a na terre ah expertise baa ngi fi ah donc damay ñaax ñëpp ñëpp nit ñëpp ah vraiment ñu euh, jublu si loolu ah donc faut pas mettre la charrue avant les bœufs ñu bëri dañuy jënd nag ba pare xool soog a xool naka lañ leen di dundalee après nga obligé jënd ay ngooñ wala dem di jënd ay ay ñax bu bu amul valeur wala di dem di jënd ay ripaas euh, sac saak saak dix mille francs ah affaire yi da ngay war a d' abord euh, préparer wu préparer wu mooy nga ñëw nga bay nga teg ah te soo bi aussi mun nga bay ñaari xeetu ñax bi nga xamni bi bii euh, dafa riche en en énergie lu melni euh, par exemple euh, ensilage yi ensilage dugub bi ensilage maïs ah wala maral falfa wala panicum yooyu dañu riche en énergie nga nga béy euh, à côté benen xeetu ñax bi nga xamni ñom ñoom riche en en en protéines hein lu melni luzerne lu melni euh, ñebbe fourragé ak yoy dal hein ah. donc ñaari soko bolé danaka euh, soxla woo ripaas wala soo soxlay ripaas tuuti nga ci soxla dal voilà. dëgg la mel tamit amna solo nit ñi dañu wara pré ñi yor nag yi ñi nga xam dañu jënd ci nag yi dañu wara a préparer en conséquence ci li jëm ci alimentation wu nag yi donc mu nekk loo xam ne vraiment lu am solo la aussi président bay neex na mais na fekk nga am fu ko bayee tey président Mamadou Ba mi ngi soulever tey li jëm ci wàllu foncier bi tey loolu fan ngeen ci toll ak gouvernement bi waaw bon tey juñu na ko euh, euh, juñu ko sax daf ko wax ah carrément foncier bi dañ ko soxla euh, franchement loolu amoon na temps état bi nee woon na nañu xool fan la ñu bëgg ñu ñu ñu jox ñu ci loolu lañ nekk nag am na yaakaar nag am naa yaakaar bu baax parce que fu mu ne nii état bi xam na enjeu bi état bi su jëlee su demee ba di jël ay milliards di koy subventionné borom nag yi jël terre yi nga xam ne coûté wu ko dara jox ñu ko loolu du du dara quoi.

Euh, dina tax aussi tous les acteurs muy ñi nga xamni euh de suñu client la ñu suñu potentiel client la ñu wala ñi nga xamni suñu potentiel fournisseur la ñu dinañ ñu gëna a xel dina tax aussi ñun euh, ñu gëna xam euh, ci ci li ñu euh, donc di leen di remercier bu baax si loolu di remercier ñi nga xam ni vraiment ñoo doon liggéeyandoo liggéey bi yëpp ba ba affaire bi mel nii di remercier ñi nga xam ah, vraiment bàyyi nañ ne ñi tey jii am ñu Richard Toll ñu partout Tambacounda partout donc nit yi jógee partout ñëw ñoo ñëpp ñu ngi leen di jaajeufal di jaajëfal diaspora bi tamit mi nga xamni dañ ko suivre à distance euh, di euh, dox euh, di di dox di rek au mois d'avril si benen bateau bi nga xamni moy indi 1200 deux ok merci mu nekkoon président Abou

Euh, def lu cérémonie de réception moy nag yi ne ne que moom euh, yi joxe ay méw bon qui yi nag bii mooy juróomeeli importation bi ñu ko commencé en 2017 def ko 2019 def ko 2021 def ko 2023 def ko 2024 bi yon nak euh, li tax mu gëna am importance pour ñun c'est que premier président de la république nous y a eu une fête pour la cérémonie de euh, la euh, quatrième importation. Nous avons fait une fête de 1250 chaque fois. Nous avons fait une facture de 1,2 milliard de dollars au Sénégal. Nous avons fait 70 milliards. Nous avons fait 35 milliards. Nous avons fait une fête de 1,2 milliard de au lieu d'indi indi par 1250 mais indi len 2500 mais yokal len jox len subvention 50% mu nek 2 milliards 500 millions lolu nak mënu ñu luddul diko gëreum diko sante pour li xamné né def nañ ko alors euh, wa anipel nak comme que mom néna que bu euh, ci kanamé ci wéri di ñëw da fay dem mais même bu dul lolu sax dañ ne woon ne loolu dañ koy sargal organiser li ñu organiser tey pour euh, remercier ko parce que góor bu fekkee ni defal na la loo xam ne lu baax na da nga koy gërëm remercier ko loolu la moom mooy li ma xam léegi mënula ñëw bon xam nañu lu tax mais mu yewal premier ministre Amadou Ba suma turandoo mu ñëw présider cérémonie bi ñu wan ko li xam ne ne moom la ñuy liggéey yëpp. li xam ne moo demee ci élevage mais wan ko également ne nekk élevage dafa am lu mu àndal moom mooy lekku jur yi lekku jur yi dañ koy bay gis ngeen ko fii dañ koy defar gis ngeen ko fii moo wan nañ ko également nag yi xam ne ñu ngi fi muy ci ANIPL 2 euh, ANIPL 3 ANIPL 4 ñu ngi fii ci biir tool bi doom yi aussi ñu ngi fi doom yi ndaw yek yi xam màgg ak yeneen yëpp ngi fi donc pour wone ne ne que bi ñuy def opération bi bi mu commencé ba légui euh dugal nañu ci biir dëkk bi 6800 mille jeunes mais euh nak yoyu ñu leen xayma am nañu ay dom ba xam ne ne que mën nañu wax ne ne que fi mu nekk ñu ngi ci presque 20000 mille têtes au Sénégal lolu lolu dafa nek lo xam nek ne euh, lu am importance le té koku il faut que ñu wax ko ñëpp dégg ko aussi voilà alors li ci des mom moy que cérémonie bi tay nak ñun li tax ñu gëna a mom moy pratiquement ñi xam nek ñu ngi nek ci secteur bi yépp ak ñu ngi ci ñëw nañu ñi xam nek parce que secteur élevage sous secteur bi meewa ngi ci mais yàpp ngi ci aussi moo tax ñu mel ni euh, suñu ñeneen naataango yi xam ne nekk ñooy président OPE yi ñoom ñu ngi fi woon également on a également ñeneen euh, ay structures yoo xam ne ñëw nañu répondre fii moom mooy lu demee ci ay fonds stable club des investisseurs ñëw na fi et cetera ñoom ñëpp ñëw nañu bokkee euh, teew nañu cérémonie bi waaw léegi nag ñun suñu wàllu bopp mënuñu wax rek ne lu dul kontaan kontaan deug deug deug li xamné nek nekk moom xew ak li xamné nek dal autorité ministre de l'élevage aussi mi ngi fi won député député voilà député yi ñëw nañu aussi tontu ñu conseil économique social euh, ñëpp amul ben structure bo xamné bu état bi ñu xamné ne ñëwuñu y compris nak les banques banques ñi jappalé yépp gis nañ leen ci cérémonie bi voilà lool dal moom moo li ma leen mëna wax yéen tam seen bopp les journalistes de leen gërëm parce que tey jii euh, ngeen ñëw euh, teew bëss bi aussi dafa nek lo xamni lu am importance le pour ñun ñu ngi leen di gërëm di leen di sant. président mu melni aussi tay comité directeur bu ANIPL ñu ngi la doon sargal ci biir événement bi mu nekk loo xam ne vraiment touché na la yow tamit mu nga ànd ceeg ñoom di liggéey depuis 2017 loolu qu'est-ce que ça te fait. Ben, euh, wax dëgg yàlla dañ ma bett bi ma gisee loolu man son bopp. d'ailleurs j'étais très ému mais euh, mais mënuma rek lu dul ñoom gërëm leen ah ñoom seen bopp ñoo gis li ma def bu fekkee ne nekk gis nañu li ma def ba xam ne ne moo tax ñu defal ma loolu maa leen di gërëm di leen sant ñoom ñëpp. waaw am nañu waxtaan aussi ak. Euh,

ba tey ligne li wax Delta Gro ñoom ñoo ñuy fournir nag bon alors ñoom seen Euh, pour comprendre que euh, dans l'Afrique au sud du Sahara Sénégal rek moom ligne liggéey li ñu def jour. affaire yu jur moo tax bilolo seen de bi fait que si ñu fi seet pour ñu mun a euh, également événement bi daaw ñëwoon nañu également ren ñëw nañu aussi waaw loolu daal moom mooy li xam ne nekk aussi kontaan la pour ñun mais kontaan également pour dëkk bi yëpp ko jërëjëf mu nekkoon suñu papa Mamadou Ba président wul ANIPL donc xam naa ni li mu wax ni dégg nañ ko mu nekk lu am am solo donc ñuy ñaan vraiment que affaire yi gën a jëm kanam ANIPL gën a jëm kanam ñuy mën di importer ba 1000 têtes donc loolu yàlla na ko yàlla def incha allah donc. jërëjëf suñu papa Maodo Ba. Ah, Moussa ñi ngi niwaat ak euh, ki nga xamni moy docteur Fall mom mi nga xamni moy vétérinaire bi nga xamni tay moy top ci ci wàllum suivi wu nag yi ba ñu jugee France bu ci nekkee ci bateau bi ba ñuy ñëwee Sénégal donc ñu bàyyi euh, docteur Fall mu wax ñu tay ci nag yeeg conditions yi ñu leen transporter ba indi leen fi ak aussi tamit ci yan condition lañ leen tek fi ci biir ferme bi ak mettre en quarantaine bi ñu leen mettre en quarantaine lan moy solo bi ak njëriñ bi. Euh, maa ngi lay sante bon. Euh, Nous buñu buñu valider commandes yépp ba dañuy quantité bi euh, demande de renseignement de prix mais en général euh, après trois opérations on travaille maintenant avec avec la plupart des coopératives en France on a un cahier de charges qui est assez assez contraignant dont on dit ce qu'on veut quelle race quelle euh, valeur génétique. Euh, et puis tout est écrit, tout est décrit de long en large. Euh, les âges des animaux, le niveau de le, stade de gestation. les bu qu'on ko fait nous ñu envoyer cahier de charge nous ñoom ñu si les offres sont acceptées maintenant on part à une une deuxième phase c'est qu'on envoie des une équipe de techniciens pour aller sélectionner les animaux Nous avons sélectionné sélectionner aussi euh, nous avons demal suñu bop. dañuy en général nag yi par benn euh, xool est-ce que méngoo nañu cahier de charge bi ñu envoyé Pour euh, bu faire, nous avons ñun ñu valider ko buñ ko valider maintenant la phase la seconde phase c'est une phase de de contrôle sanitaire en fonction du certificat sanitaire bi nga xamné état du Sénégal moko am ne ku bëgg a dugal ab wala mala ci Sénégal ni la wara mel ni la wara mengo analyse yi nga wara def ñom bu défé analyse yoyu ba paré ba nga xamné maintenant nous on a agréé les animaux eux ils ont fait euh, les barrières sanitaires les animaux l'ont les ont dépassés on passe à la phase d'expédition. En général, la phase d'expédition, ça répond à des normes, mais nous savons ils ont une très grande expérience dans ce domaine-là. Et en général, chaque année, ils, euh, transportent à travers le monde à peu près 200 000 animaux, un peu plus de 200 000 animaux. Si nous envoyé, nous convoquons, ñu woo leen ñu jël nag yi def ko tirage au sort li ñuy bañ mooy nag yi egsi fii ku nekk naan bii laa bëgg ki naan bii laa bëgg tànn bi sax du du ci am parce que cahier de charge bi ni mu contraignant yi buñ ko respecté nag bu bon amul ci nag yi <coughs> mais nag pour yombal affaire bi pour mettre nit ñi en confiance on préfère def ko tirage au sort loolu mooy indi loolu donc buñ tiré nag yi en général buñ ci toogee ñaari fan ñetti fan nag yi egsi euh, bu nag yi excès aussi ñu it ñu ngi ci commencé am expérience en général junni nag 1500 euh, cinq nag ak euh, ak 400 cent petits ruminants ñoo ngi koy décharger ci benn guddi donc. liggéey bu metti la loolu liggéey bu metti la mais c'est parce que yàgg nañ ci commencé nañ comprendre les xam nañ léegi nan lay demee quoi yoo yoon bi. li ci des mooy liggéey bi nga xam ne moo ci gën a am solo fekk yu lekk nag yi yemb pour pour que lekk nag yi yomb nag pour mu yomb il faut ñu bay li nag yi lekk. wala ñu doon aborder léegi ak culture fourragère yi ak président Abou Kane ñu tëj foofu. voilà léegi nag euh, pour que loolu am il faut soit ni ñi am fermier yi am tool wala moo am ay entreprise yoo xam ne yi dañuy yëngatu ci loolu di bay fourrage. di ko di leen ko jaay fourage bi nag bu fekkee ne am na qualité dana baax da ñaare du du cher parce que fourage bu am qualité nga jox ko nag boo am qualité da nga am meew da nga mën a am xaalis da nga mën a fay fourrage bi mais bu fekkee fourrage bi nekkul de qualité nga jox ko sam nagit it yàgg-yàgg kii jaay fourrage dootu jaay mais yow aussi da nga arrêté euh, voilà donc euh, Sénégal am na suuf Sénégal am na ndox. am na naaj. li des mooy suuf si ñuy ñu yombal ko nit ñi pour ñi nga xam ne dañoo bëgg liggéey pas paa pour ñiy spéculer mais ñi nga xam ne dañoo bëgg liggéey ñu yombal leen suuf si ñu am ko euh, ñu boole ci liggéey ak ak xam-xam c'est-à-dire pas tëb tëb rek liggéey mais li ñuy liggéey ñu ñu ñu li ñu bëgg a def. saytu ko ñu saytu ko analyse ko baax bind ko. Mhm. exécuter ko nañ ko bindee. analyse de sol nit ñi dañ ko war def ci seen bopp. Mhm. analyse ndox mi dañ ko war def seen bopp itinéraire culturel yi aussi dañ ko war di ko def ba nga xam ne bii danañu amal njëriñ quoi. macha allah mu nekkoon docteur Fall looy tëjee ñu bàyyi la rek nga tëj ñu dem. Euh, tëj bi rek mooy sant yàlla. ba pare aussi ñaax nit ñi ñu investir ci élevage agriculture. investir ci élevage agriculture am nañ njëriñ. réew àddina yu bëri ñu ngi ci souveraineté alimentaire dafa am importance ba pare it buñ dee liggéey nañu liggéey ak technologie ak xam-xam comme ça ni ngay def nga xam ko nga bañ a yàq sax xaalis. macha allah mu nekkoon kàddu yu am solo yu docteur Fall moom mi nga xam ni membre la ci comité directeur ANIPL aussi mu nekk vétérinaire bi nga xam ni mooy def suivi wu nag yi de France ba ba Sénégal. donc mu nekkoon vraiment seen émission découverte gis ngeen nag yi gis ngeen organisation bi gis ngeen cérémonie bi comment ça s'est passé donc ñu wanoon ñu bëggoon leen wan rek en quelque sorte nu cérémonie bi demee ak ay aspect technique ci nag yi nga xam ne ñooy jeunes stand yi ñu jëlee France donc mu nekkoon seen émission découverte ñu leen jox dig daje ba beneen yoon incha allah